waaw maa ngi leen di fay doolu si yàlla xanaa kontaan ak mbégte rek am lu sedd ñu sama xol yow ma ne ba ma juddoo ba léegi mbégte bi ma am ko am ndax sama doom ji dafa maa bëgg déggal ma yërëm ma jege ma waaw Sénégal jaay ñëpp xam ko ne fu ñu wax ne dee yaayam dee yaayam te loolu muy wax rek moom la dund kon na ma di ko ñaanal sëyam bii yàlla na gën sëy waaw yàlla na bokk sëy yi takkee aras waaw. Euh, ban genre doom doom bëgg yaayam bëgg papam bëgg fameem fameem rek ko ñor da daal defu defu daraay euh, kii mbedd lépp rek ci biir kër gi lu am ne sama yaay sama papa sama famille rek ba waral tey bisam bi tey jii kon nag ma di ko ñaanal rek féexte ak jàmm ak salaam ak sëyam bi yàlla na dem ba raamaan moom jëkkëram ñu leen di weer di weri ndax sëy rek lay def ndax sëy la doon man mi yaay boo ma toy ba tey jóguma kon nag geela gis na la ci yaayam te boo naan day takki jabar da ngay xool ku yaayam sëy nga takk te mooy jaay la waaw waaw coow yoo xamante ne toogoon na ko ci jamono mu ne yaay waay juróom bu jigéen ne xam na xoolu doom ak yaay sama yaram sax ndax tax dara nekku xam naa sama doom respecté naa sama doom coow loolu sax tey taxuñ noo jóg tey bis bi rek moo ñu ñor ñoom ñoom amuñu benn affaire tey nañ dem ci bis bi rek moo ñu ñor ñooñu seen temps sax bis bi rek waaw yaas lim ñu wan yaas wan nañu ngor wan nañu sutura wan nañu ku baax ndax ba àndee suñu doom ak léegi mat fukki mu a dox benn tànku caaxaan mos a dox benn bu ñàkk fulla ba tey bi nga xam ne yàlla tudd seen diggante mu seet ba xam ne bëgg na suñu doom xam ne bëgg na ko barki démb la ñu waxtaan barki démb la ñu ko tey kon xam nga kon loolu tey bu ñu deewoon tey ji si guddi dañuy tàll ndax teg nañ deele ci loxo yaas dañuy bég am benn ti duñ dañoo kontaan yaas ñu koy gërëm di ko sant xam ne tey ji suñu xol seet na bu doon doon tey yaas moom tey bu doon tey jee tey affaire bi yëpp ci këram lay ndax mën na ko ndey mën na ko bàyyi ginnaaw yàlla ak yonent bi ak ay waajuram tey fu jàllee egg rek yaas la rëccu li ñu ko joxe bu ñu ko rëccoo ni ko ko may dañ ko wóolu gis ci moom sart yu bari nag yu ñu neex moo tax ñu jox ko suñu doom xam nga nee na olof jaay nee na nag boolu bëjëram du ko xese noonu mooy ñun suñu diggante ak yaas sama doom sama doom li mu gis ci man rek lay sëyee ndax gis na ni may sëyee doful da nga dox ba jël sa tànk yaay ne ci ne ci ba doon mag xam nga ne sa yaay sëy soo rek nga jaar ndax sa yaay dafa seen dafa jeex yaay ba ma toogee ba tey musuma kenn musuma fay le aw ma leen naqar àdduna lu bëggal seen papa lu ma xëy suba ba ngoon lu neex seen papa laa ciy dox moo tax tey sama doom il faut ñu ndax nee nan boo bëggee jabar ci ko yaayam sëy nga xool te jële loolu la def waaw ba jeex ak sëñ Tuubaa Mbàkke yaay est-ce que nekkul ce que nekkul tamit clatement bi coow li amee loolu moo tax ñu profité mariage bi taxul ñu profité bi de parce que ñu toolool dérangé wuñu ñun buñ ko toolool ñu profité ko booba booba dañu waxul waxi boobu waaye bu bëggee ñu may ko ñun profité wuñ ko de toolool suñu yoon nekk laa la yëgewuñ ko suñu yaram faalewuñ ko bokkuñu ko ñun xëy bi la ñuy ñor tey toolool suñu yoon nekku ci lijjantiwuñ leen sax xamuñu leen xamuñu ñi ngeen ñu ñi ngeen ñu déggee yéen sax gis nañ leen waaw mais bu problème bi amul woon kenn du xam digganteem ak ménagère booba ménagère bëggante wut ak moom heure bi la ko bëgg gi dab ñu may ko ko bëgg ñee lañ ko ko may lu baax duñ ko xaar lu baax duñ ko xaar. yaas ak yàlla génnuñu yaas ak yàlla dañu ànd liggéey sutura ngor dañoo dem ba léegi ñu waxtaan ñu xam ne yaas bëgg na am jabar deele war naa mën am sëy ndaxte boo nekk ci aar bi da ngaa war am borom kër bu la soutenir kenn coow du la topp moo tax ñu def bi. Dieyla sey bi dina ko sëy ndax rakkam rakk rakkaatam mi ngi sëy Dieyla rakkam rakkaatam mi ngi sëy sama caat moo ngi sëy lu baax la fay def ko wax tànkaan ak Dieyla ñu sëy lañ xam ñu dañu sëy ba jeex ñun duñ def loolu ñooñu sey tas dañoo xamul sëy xamuñu sëy ñun dañoo xam sey ba jeex ñun fu ñu xës sëy ba jeex sama doom ñoo bokk ndey ak baay caat ba taw ñoo bokk ndey ak fii deel toolu sëy fii a toolu sëy ba léegi te génn ma kër kon deel day sëy ba jeex ñun xamuñu sëy tas sëy tas da nga koy doon wala nga nàmp ko te ko nàmp ko xamu ko kon du sëy tas ñun ñun ñun jëkkëram ko ko alal ne bëgg na rek ñu may ko jabar yaas yaas li mu def li mu ko compté moo ëpp yàlla def na deelu rëy dañu def ci dee la kenn xamul nu mu toll mënuñu koo lim waaw. Ah. bi ñu da ngay waxee siyaas nga ne ko xër ci moom. dama ci xër dama ci xër maa ko gën a bëgg sa gay la aw ma ci moom sax suñu tudd yaa sax damay lox parce que suñu tubaab bàkk waaw